bàyyi leen ko foofu kan moo la fi indi. xawma oh, ko de xawma oh, ko tamit. ah ko xam kay ku la fi indi. mais tey laa julli sa julli sa sama julli ko julli. ah kon toogal foofu di wax waxal fii tontanteeg yow fii. yow yaa may tontu. man waaw xawma sa jot sax. ma ne tegal bale gi yow tegal gi. yaay sama ndey xamoon naa ne ba dikkati dem si guddi bi mu dikkee fajal teel la leen di xamal. gis nga yow alimatu penda ah seen congé jeex na yéen moom seen congé jeex na. ak yi kër de doom doo fi liggéey. fii doo fi liggéey. liggéey koo fi jëlee yow. maa la fi jëlee kay. kër gi yow doo fi liggéey. yow mère. ma kan moo la indi ci kër gi laay laaj yow. ñi ma fi indi daal ma fi mën a jëlee mère yow moom. ñan ñoo la fi indi. ñi ma fi indi daal ñoo fi mën a jële dama lay laaj ñu la fi indi. foofu daal laa mën a yem ak yow. ngelaw de indiwu la fi. Ah, loolu de xaw ma doo wax ko la fii yu mel julli sa julli tanga ba ma mooy loolu lu may jullee sama julli man sa julli laa tanga ba ma encore mère bi xamoon naa ne rek bu ñu bàyyi ñu yàggali suñu grasse matinée oh. dangay waar waroon naa toog nag ba lëndi sax bokk ndax ñu mën am suñu dimanche bu tranquille ah kenn mësu ko gis sama yaay daal li muy compliqué compliqué yépp sa yaay ko gënoon compliqué waaw. ak sa yi nga sol nii mel ni koo xam xanaa yow kër ga nga jóge kilifa newu fa. kooku du sa problème. sama problème la kay. yow mii yow da xaw ma ku fi liggéey waaye doon yow. Ah. liggéey. maa la fii jële kay. yaa fi jële fii liggéey dafee musta am. ku fi ñëw fii di liggéey fii musu fee am. am na fi nag. du fi am nag. bii nag am na fi tey. fii du fi am. ma sama ginnaaw la fi mën a nekkee sama ginnaaw dañ ko fi def ñetti weer yi ma am àll moom la defee lii mais lii day ah, dañ day dañ dañ kooku du sa affaire li jënti sa affaire hmm. xam nga ni yow doo fi liggéey de kenn xamul looy nu rool nii ak sa yi nga sol nii mel ni lu ma xamul lu mu doon lii ma saf moo tax ma waaye dañ ko dem seet feneen foo tawee waa du lii moo ma moo tax ma ko sol te bu la leeree ni mënuma teg bale gi laa wax yow tegal bale gi mère bu la leereen yow doo fi tegloo bale gi rek mi maa la koy tegloo fii nag ba mu neex yow ñi ma fi indi saa bu jógee ni ma tegal ñoo la fi indi ñi la fi indi ñooñu laa bëgg xam kër gi dafa am ñaari borom xanaa loolu de wóoruma ah war na laa wóor kay wóoruma de ngelaw indi wu la fi kan moo la fi indi loolu de wóoruma ah baax na ba waa kër gi yow bu ñu yeewoo fii lañ may fekk fii luñ fi teg te neexuma dinaa ko dindi xaw ma bu la neexee bu la neexul man daal loolu sax duma ko xaar yow dinaa seet ba xam yow ñan ñoo la fi indi waaw dama yéene <laughs> su doon sama saako de ñetti weeram yooyu dina desaat yeneen ñetti weer ndax ñu mën a am suñu jàmm oh bu ñëwee rek elle perturbe tout. bàyyi këram ngi dem fële ay 6 yooyu ñetti weer yoom fa def doy. su booy yooyu daal mer bi en fait quand ne ba ma la fa gisul woon dama daan liggéey normal sama liggéey ba mu jeex dem sama yoon dem sama yoon waaw te mees dama bëgg nga bama bama bama rek waaw aw ma dara lu may wax ak yow bama tegoo ma fi dañu fee mën a jële yow man maa toppatoo sa kër gi sa kër gu bon gi dafa am dara sa kër gu bon gi dara amoo ko dara amoo ko kër goo xam ne amul télévision amul dara pare ngay jéem a jaay doose sama xaar da ma koy fay

ñi la fi indi ñi la fi indi nañu ko ci sa fay la nga génn romb ma fii. loolu nga wax bu ñu ko disee fay ma rek ma abule sama xaalis sama loxo ma génn àll leen seen kër ma. waaw ah, tey bëgguma fi eh, la sama xaalis sama eh, yoon. bu leen ma laaj lan la bu leen ma laaj lan la bu leen sama xaalis sama loxo ma leen. kii ngeen fi lépp dégg naa bëgg moom eh, eh, eh, war ngaa xam ni tamit sama xaalis léegi léegi léegi léegi léegi ñu jox la ko loolu mënul nekk sama xaalis jox leen ma ko rek loo leen mën rek la jox leen ma sama xaalis yow sa morom ngay waxal sama xaalis waaw xaw ma ku may waxale waaye sama xaalis ma tëggu fi nii nga ma samay bagage kañ pare nag jox leen ma sama xaalis ma dem sama yoon wax ak yow le la waxoon te tey la le 22 le 5 sama xaalis fii ngeen koy nijaay mbir mi dañ koy teg ci yoon de le 5 la ñu waxoon ak moom. waaw may leen ma may leen ma comme que demee na nii ba demee na nii. léegi dinaa joxe mille francs yow seetal looy joxe kii lu muy joxe. Ah, ñu jox ko xaalisam mu mu jeex tey loolu mënul nekk waaye. Ah, la ma doon réparé man sama super bi. dinaa fexe ba indi ko ñu dajale ko jox fay la ma sama xaalis léegi ñu bëgg may fay maa dama génn fii. kon yaa ki la fi indi di ngeen ànd romb ma fi bu la neexee say doom la man boo leen génnee sama yoon nekk si waaye man dinaa génn sa kër am sama xaalis non non non indi deux mille yëpp indi deux mille yëpp non non indi deux mille yëpp non joxe joxe rek kii moom joxe rek kii dem yoonu moo gën a baax joxe rek non xëy na fii suba di nga am paas jox rek jox damay monter léegi non jox rek indi indi deux mille indi deux mille jox ko xaalis non yaay noppi yaay noppi waaye tamit ah ndumbe may ni yow itam ko ñu ngi rek leen mbir mi ñu ngi comme que ñu ngi koy réglé mais ñu ne. donc laa sa xaalis bi sa xaalis nga dem xool jeex na tax demal sa yoon. léegi wax ji doy na la. demal demal demal ok demal demal baax na waaye demal waaye ah. jaayoo tamit noppi demal sa yoon waaye yaay yaa xoolal. wuyu ma fii yow amuloo dara yow loo war a yow yaa ñàkk fayda yow yow goor gi matoo dara yow. Ah, bo maton kër gi du melni yow kër gi lu fi yakku yow la ndax yow yaay kilifa ji yak ci kër gi suma fi nekkul yow yaa ma fi war a remplacer. ah loolu ñàkk fayda boo ñàkkuloon fayda du ñu dem naan dañuy jël mindaan di indi ko diko ko ci biir kër gi mindaan ñetti jigéen. ah loolu nga may fay. loolu la lay fay loolu la lay tontu yow. loolu la lay tontu demal tontu yaay. loolu la lay tontu yow ah lii la lay fay yow da nga mat dara da nga ñu tuk dara yow. yaay demal tontu yëpp yaa rek yaay ah yeb yaa ko wa waa jërëjëf yaay toogal toogal rek nag yaay yow tamit nag oh yaay. demal toog yaa ngi ni sunu sunu sunu sunu lii bi. sunu matina sunu glace matina bi yaa ngi yàq yaay yaa ngi yàq sunu glace matina bi ah toogal waay ah. yow war ngaa tukki waat ah war ngaa tukki waat rek waay yaa yàq sunu glace ah, matina bi toogal waay yaay ah. ñàkk fayda bay bëgg a dee dajale ay jigéen ñu ne xib ci biir kër rek ci gis muy lu ma xamul lu mu doon ah wan na bëgg a dee añu tëdd naan da ngeen di nelaw seen morom yi fi di saaf di lakki bañ lu ne nit ñi di ko def ñoom defuñu fi dara lu dul wujjee rek lu ma lu mu doon yéen yéen a sob mel nit lu ma lu mu doon ñàkk fayda bay bëgg liggéey ni seen naw ngeen da leen a amuñu ko buñ jógee amuñu heure julli doo toog ba gis kenn kenn kenn waaye julli ba léegi yaa wax gis nga yow man duma sa morom asan duma sa morom lu tee ba duma wax te kër gi yàqu ma gis fi bawuma ko fi wax kay yaay liñ fi def fi dara lu defu leen fi dara lu lan lañ fi def ci ci lu dara bi ngeen fi indi ah mais ah? bi ngeen fi indi yaay yow jaay nag dañoo waroon a noppalu naan ci kër gi du fi am ñetti jabar ngeen yor ko ci biir kër gi di bind mi naan mais yaa lañ yow kilo mburu laa lay defaral tey ji nga ndékki laa lay defaral te ndékki yow yaa ngi tukki ñëw au lieu nga toog noppalu récupérer mais nga nekk fi di wax rek récupérer wu ay ah dëgg ah. doom ay bii meer doom matul doom waaye meer meer di leen jiital yéen kay doom yéen man nga yow yaa jeex na mère. ñibbisi naa de maa ngi nii ci biir kër gi. ma ni mère yaa li ma bëgg rek moo fi am li ma bëgg moo fi am sama kër gi maa ko moom li ma bëgg rek moo fi am. waaw man nag ku ma romb ma nii. looy nekkee yaay. xanaa sooy jabar waroon a yow di ma defaral ndékki. waaye yow ma naan defaral ah. ndékki. cëm ci yàlla dëgg dëgg daal. ñooñu nga tëral ci kaw lal bi ñoo ñoo waroon a yow di ma defaral ndékki. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yaa ma naka. gis nga sa xasse yi bu ko doon sol ci saabu fees naka meer dina fees bëri ko li may xasse yëpp yow mi ngi ci yow ndax yow da ngaa ñàkk fayda ñàkk fayda bay bëgg a dee yor ay jigéen koo ci gis dégg nga man muy baan bëgg saat bu bay bëgg a dee yéen ni mus mu naan dëwli ah duñ leen wéel duñ leen fone duñ leen defal dara mais nag yaay xale yaa ngi góorgóorlu ñoo ngi góorgóorlu nag yaay lu ñuy góorgóorlu lu tëdd wujje tëdd mais duñu bale duñu rax na def ci leen min daan min daan du fi am fii moom boo fi ñëwee yéen ñëppay jox ku ci nekk li mu war a liggéey da koy liggéey ndax dama daan liggéey dama daan liggéey nga yaay wax man dama daan liggéey waaw yaay ñu leen ah? sonal seen bopp wala ñu sonal seen bopp saf ma sonal nga heure bu ma aaye nag nga jël ko lekk mais bu tey bi moom mënuma la ko bàyyee mënoo chaque jour nga aaye waaye yow am nan démb mu yëg mu seetaan ko noppi nga leen dem ba gën a tey mu ne ah. ba ci la. jabaru ginaar. yow naa la boole quoi. tey ñun ñoo ko moom. Eh, tey ñun ñoo ko moom. man sama wax da ci dul bëri sax ko yow tam nga saa yu ginaar gi ne nga foog ni sa jëkkër doo nga bëgg lu neex eh, quoi mais. non jaral na ma ko mën nañ ko def pas mais de toute façon de toute façon suboy la len di bayal mom dina lijeenti nen ba mu leer nañ ñe suboy bu sax xamul sax liggéey gi di réer yaa ngi dégg bi man mii man maa fi teel a nen bi mo neex la koy def ya. yaa waaye yow ba am doole da ko cooy eh kan li nga ci gis ba diko jox sa jëkkër gi man mom la ci seen dañ koy yeefal en tout eh, cas eh. nen bi mom tay ken mënuma len ko bàyyee tax ma leen koy bàyyee eh wuyu ma man attention man dañ may yafal ah. dañ may yafal soo bëggee ma tol nii da ngay gisee chou nga laaj ko nan la may defal. nga ay ay waay nekk nii léegi man ku ma neex laa ko jox. nekk yow bëgg lekk bay bëgg a ko lekk. li eh, wër boobu wër mooy nekk di romb seen bëri tey ñoo ko moom. nga ñëw à deuxième position yow. yëpp ma bëgg lekk mu jeex eh tey bàyyi man may defar leer bi léegi dégg waa yaay ndekkil ah. kenn balewu waaye yow Safiyat yow yow lan moo tax doo jóg nga bale kër gi xoolal kër gi ni mu mel xanaa bala ngaa xëy di dendandoo nga mën a li jël xool sa kër gi ni mu mel yow seetoo sa nawle buy waxu ñëw dugg ci biir kër gi wala man aw may nawle xoolal kër gi ni mu mel ndekki kay bala kaa kenn def fi ngay xool di fi teg sa bët mu set waaye kër gu mel nii nga ñëw di taaj ndekki

affaire lii mënu ma ko woon a bàyyi lu ma war a dem lijjanti ji la il faut ma dem lijjanti ko bu ma ko déggee rek noonu laay mën a deme ah. waaw Tafa moom nan la mujjee su koy na ah alhamdulilah yàlla kay def na li ma doon toppatoo foofu yëpp léegi yàlla dimbale na réglé na ko waaw léegi mu nga toog ca këram. Ah, yàlla baax na waaw suñ ci toppoon sama nijaay Malle de kenn waxatu ko. laay laay la Malle Malle de maar de taali kooku de la mu bëgg. sama nijaay Malle moom dafa tàng torop. la mu bëgg moom kooku ko ku ci ànd ak moom nekk yàlla su koy fii lay del si ñëw toog ci biir kër gi. loolu moom du bëgg man nag sama doom sëy laa ko sans na toog sëy toog foofu ci kër jëkkëram moo ma gënal mu ñëw fii di dajaloo fii kooku moom bëgguma ko ñaanuma ko yàlla yàlla defar na lépp léegi ma nga fa toog kooku moom dinañu sant yàlla ci loolu rek wante Kaolack tàng na de eh tàng na yooyu kay moom bu guddee maar day doo nelaw bu guddee yooyu moom doo nelaw yow kat dangaa dem rek mel ni ku fi dëkkatul laay laay laa nu may def kay dama dem ni firaax foofu rek eh. tok kay buma demé dama ya? ni firaax foofu rek tok ya, japp sama njaam namoon nañ la trop nak wax ci yalla manké won nga fi trop fer ndox sa jabal mom dal day soti ndox gis nga buy sangu fi mu ne maar day taal moom sangoom bi sangu lan la mom bu duggé ci dous maar day taal du fa génn paccax paccax ak bëccëg fo tollu ndox miy tuuru foo toll nag guddeeg bëccëg moom daal si kam mom nah, lolou la xam naa moom ndox moom bu facture ñëwee di nga fay bay bëgg a dee du kenn nag moom dong lay dox. su moom lu ko tax lay bañ moom lu ko tax lu nekk rek moom ca douche ba la koy fajee. dem ah, ko tax lu ko ci douche ba la ko te du seet ne mag a ngi ci biir kër gi bu bëggee soxlaa douche bi du ci dugg damay génn di topp koñ bi di wër këri jàmbur yi di fi dugg di wuti douche ah loolu de doy na waar loolu daal moom kenn mësu ko gis

gis nga si la plat bi ma jox démb xam nga euh, ngoole jant bi fu dee sox noonu muy xonkee nen bi noonu la mel mooy ba ma ko doon lekk taxawuma tooguma dama doon kali bu ji bii sax doo ci ñam waaye xaaral nen moom moom rek moom tey <laughs> <laughs> la ni ngay defaree affaire bi lii laa xamante ni kii yow it du mënuloo daf saf yéen xaw ma saf yéen lan la mënul de mais defar nañ moom sur le ah, moo ci la may nga xool xoolal la xool. yow boobu boobu m nga ni du saf dara. boobu du saf dara. bàyyi ko man rek. <laughs> moom ni nga def tey moom. ay saf yéen toog ma doy ci nen de. yow boo defoon daal nga dina ma yow xanaa sa xel dañ koy def léegi. moom moom looloo ko naqari li ko naqari mooy dina ko ko. dina bi ah. yow affaire bi dafa pare ah. gis nga ko. Ah. de lii na jox moom. yow sa nen bi xanaa da nga xaaj. yow lii et puis defoo ci dara kii quoi amul soble amul dara. yow Assane lii mënoo ci génn sa bi. doomu nen bii. démb bi ngay lekk sa nen man dama la wax dara. ah attention man de. nen bi nen nen nen nen bi nenu lan la yow. ah nenu ginaar gi. waaw mooy ginaar gi nga fi indi woon. ban ginaar. ginaar gi ci kër gi. sama ginaar man daay lakk yàlla loolu ñemewu leen ko sama ginaar man. ah ah ginaar gi ci kër gi la. déedéet wax leen ma gi ñemewu gi ci kër gi ñeme na di nen ngeen teg ko fii di ko wan loolu ñemewu leen ko ah. mani waxal leneen laa wax sama ginaar gi ñu mewu leen koo taaj fii muy ne ngeen di ko lekk yow ñëw leen loolu yow yaay ali masul daal damay a ñetti nen dong la fi mës a nen mani xoolal loolu du ko dégg loolu moom bu du ko dégg sama ginaar gi indi fii mu nekk cuuj ma taaj fii moom mii la man. yaa ngi xam nga moom du ma la kuy lekk ay lekk. yow a a a rëy. man damaa waaru man man kii. kii dafa jar a wax kii naa fekk la quand même. Ah, yow yaa ngi naa fekk jaaxal nga ma demal. yow chérie maa ngi dem marché. non merci gisoo maa ngi bëgg laaj bàyyi ma dem ba ñëw loo bëgg a ñëw ceebu am sul ak bëgg ah non non ceebu jën barki dem moo ñaari topp maa fe maa fe boy voilà supp kanji bu tan. non maa fe Ra bëgg ñu topp ah maa fe moom kenn xoola bàyyi ma topp maa bu topp maa fe nga man marché ak Bo man ma yow téyel sa mbale mi sama kaw ngay bale yow xanaa wéroo booy bale doo seet foo war a bale dangay ñëw fekk ma toog ngay bale sama kaw waa ndax lii jàmm la ah ci ba ah waaw problème waaw dafa bari ndimbe man suma ndimbe nga bàyyi doxu guddi ndimbe guddi nga fi guddi nga fi ndimbe guddi yi sax defatuñu ko wante yow ñoxor nga te sax mot guddi lay bàyyi doxub guddi ndumbe man daal suma sañoon nga bàyyi doxub guddi ma ne yoon bi il faut ma dem guddi gi ma dem il faut ma dem ko ndax buñ la nee ñëwal te liñ la nee ñëwal loolu histoire la war a toog toog di xaar guddeeg bëccëg lépp yàllaa ko yore dinaa dem man daal fii ne damaa sant yàlla comme man jóge naa fi dem Kaolack li ma doon lijjanti ji lijjanti naa ko ba yàlla def na yépp nekk na jàmm léegi man damaa sant yàlla bu baax waaye ñëwal sa doom am na problème ak jëkkëram nga toog naan dangay xaar bëccëg du ma ko def. waaw léegi sukkee na nu mu def ak euh, borom këram. alhamdulilah fi ne nii léegi kay fi ne nii ñu ngi jàmm problème bi yëpp yàlla def na rek la ndax comme léegi kay yàlla def na jàmm su ko yéene kër toog jëkkëram génn na wuti beneen kër dem na ko kër gi su seen kër bàyyi hmm. ah suñu kër bàyyi la ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk hmm. kon kay yàlla àtte na su ma ko yëkkatee dégg ko ñu bokk fa nekk bu muy bëgg indi ay coow yoo xam ne kenn du xam coow lu mu doon te man pour bëgg a sëyloo sama doom rek moo tax ma loolu lépp ma daf ko ci ah nu may def ah dogguma la de ndax lii nga def sax farata la sunna la wante man daal li ma gisoon mooy nga bàyyi woon grand bi mu dem rekle affaire boobu grand ba ah kay ndax jëkkëru sukkee ne li mu def dadul dëgg yoon eh. ki da daf ko waroon daf ko war a régler da nga ko waroon bàyyi mu dem rekle ko ma yow régler bu mel na xanaa du malé ngay eh, ba ah kay màlle ma bayiko mu dem kawal rek la ji waw waaw sama sey doom ñew fii yalla téré dédét lolou mom duma ko mani jëkkëram yorul takul, dégg nga ci mani fan la nek du ci kër ga la nek adina day dox bu yorul takul, adina day dox man daal sama dabar moy sama doom dama ko seylo ah ngi dégg day dox après mu tak jabar di di bayindi mané mani Tak na jabar andi nako ci kër ga mais ay bama démé demee na jabar ja util nako fum ko lu len jam nga ni ñoy ñom ñep ñi ngi ci seen jam loolu moom a gënal parce que kee dañ ko sëyloo su kay dañ ko sëyloo dégg nga comme dañ ko sëyloo nag duma fa dem di wax lu tasub sëy ma yaay ginnaaw ginnaaw ginnaaw noonu nga gisee ah, noonu laa ko gisee kay ah noonu laa ko gisee di jigéen kat sëy rek ah, kon nag nga toog tey loolu suñu kontaante la war a doon ñun ñëpp góor gi yow sa jabar ji doyna war de ci naka sa jabar ji hmm. Hmm. gi sa jabar ji doyna war ah lu ci Nek lu fa nek lu ci mom lu fa nek lu nek ci mom hmm. góor gi sa jabar ji dal mom doy war xale bi fa rew reew bu demee nak amul yar mo ben respect man dal ay mbiram mom deug deug deug deug man man dal man dal wax deug yalla sa jabar ji mom pour ñu bok nek ci kër gi ah dañu doy wax trop. man de góor gi loolu moom. sama mag la ma la doon wax rek moo ci nekk nit dafay nangoo joboote sa ginnaaw da nga koy yaatal mu yaatu te nga xam ne ñun ñëpp yaa ñu bokk boot ndax xamal ne yow yaa ñu joboote xale yii man may seen nijaay te man maa topp ci yow màlle mais dong moo la mag kon war ngaa gérer lu baree baree bari bari xale nak soko boté après di xolat gauche ko xol droite fay indi ay problème man yi gi degluma sama ginau gi lu mu yaatu yaatu yaatu yaatu may bot munuma bot dara di ma jam ci sama ginau. Muno munuma ko kat te yit duma ko jëm ku may saw yaram day tax bandan waye yaram fess del ki dëkk fuma tourner mu di ma ciut cuut ma kooku moom mënuma koo jéem duma ko def tay duma ko def suba eh man day sama xalaat la la wax man daal suma sañoon suma sañoon daal nga wàccee sa tension bi ngay def nii ndax da ngay seet sànq rek ni nga ni nga tàmpete woon man mujj gi dama ci rusa rusa rus ba nga ni lu mu doon yow man yow loolu rus man dëgg bu ñëwee dama koy wax ah. gis nga man dëgg moo ma yàq gis nga yow yow sa fas moom fa daanu fa mu daanoo mooy gis nga xale bii ñëw ci biir kër gii ah xale ban lalla dumbu yaa mi ñëw ci kër gi maa ko wax maa ne lalla waaw waxal ndànk ay góor gi góor gi takkal sa fit wi góor gi góor nga takkal sa fit wi bul ma damay bëgg waar man ay góor gi takkal sa fit ngir yàlla ci naka ah ci naka ah waa penda waa ah penda nag tey moom tubaarkàlla ah. yow sa fils dafa rafet de fils moom rafet bi nga

waaw waxtaan ba. Euh, ci wàlli oto bi oto bi yàgg naa leen wax ne am ñànkar la baaxul oto bi lim ma def ci fan yii maar day taalima sama na na nga déglu nag ma wax la dégg nga. dinaa la xamal leen di may ma tuuti wax la barki démb waaye góor gi déglu ma tuuti rek di nga dem xam nga lu ma lay yëgal sama xaalis laa soxla bul ma fi indi benn wax wax naa la ko nag man dofu ma jënd jàpp ma. ñetti weer laa am kaw lax ñëw. kon bi ma ñëwee waroon ngaa dajal sama xaalis dañ ko tegal ma ko fee mais doo jël sa xaalis lekk ko lekk si ngeen seddoo seen xaalis ba pare man sama wàll nga def ko nan ah non non non bul ma wax mu lekk. man sama xaalis daal laa dama bëgg nga déglu ma ma leeralal la affaire oto bi ci laa nekk oto bi coupelle yi baaxul feren yi baaxul dégg nga na nga déglu bu baax nag li ma lay wax de. yow laay déglu waaw. bërki démb xaw naa cee def musiba dégg damaa daw a daw ba ci àgg rek na wekket rek jiitu ma oto bi ñarti ñarti ñarti kaw la jóg lu nekk client yi wax nañu ma ko. dégg nga ci man de tey rek laa waar man ay tuuti ma wax la. <laughs> oto oto boo xamante ni mënatul mënatul génn kii géejaway euh, Pikine. kooku hmm. nga xam ne baaxatul. lëwye bi lëwye bi vitesse laa doon dugal mu dekkalewu wu moom ah. man lii jaaxal na hmm? ma. waaw déglul. ma yow man kay fi ne sama nopp yëpp ci yow la nekk. man dag ma jaaxal fi mu ne nii waxal ak la ñaata laa fa fay soixante quinze mille francs hmm? parce que boulon yëpp a damm boulon su xasee ba dam kay jeex na léegi yu bees rek comme que nag moom mënuma cee def lu bees ma gis ab mécanicien waxtaan ak moom mu rek leen ma ko ma fay ko soixante mille ndax yëpp dafa dafa seer léegi hmm, hmm, góor gi man ma de yow fi nga dugal xaalis bi man xam naa ko mais nag yow waaw xam naa ko waaye xaaral damay woo léegi Assane mu jëm wu dem wool ma njaayam Malle Malle moom bu ñëwee ñu réglé affaire il faut ñu jëm koo réglé ba mu leer nañ Assane mais Malle dafa xam ci dafa nekk ci tali Assane kaay dem wool ma sa nijaay léegi léegi léegi ñëwal dem téléphoné ko nga ne lan Malle dafa xam ci oto bi dara ki nga xamante ni camélia rek la xam nga naan da ngay wooyu Malle lu mu ci am ñëwal nga dem sa nijaay Malle bul sax dugg oto téléphoné léegi ne ko nañu wuy si ma léegi dama koo soxla waaw joxe sa ma jox la saa yow fa dem téléphone ma jox ma saa yoruma ko dama wow temps yaay indi dimbale ma rek nga dem te ñëw man kay fin ne dara mënut a génn ci man ba tama lijjanti li may lijjanti man daal di wóor ba wóor mooy oto bi man dinaa ko bàyyi góor gi negal ba maa la ñëw ba maa la ñëw <laughs> ba maa la ñëw yi ngay wax nii oto boo xam ne man dafu de oto boo xamante ni ah. visite technique bi sax ñemewu faa dem ah su fay dem ñu koy jàpp alkaati dañuy arrangé euh, dañ leen di ñaan ba sonn ñu ñuy door a bàyyi su ñëwee coow lu bari dong la fii def ma la wax rek moo moo nekk ci oto bi man maa nekk ci tali bi maa xam oto bi ma la jëndaloon charge bi ah. xam nga ne moo li gën a bëgg laay toggal pen la may bu saf-saf laa dugg ah yow de doom kontaan naa ci yow yaa ma gënal ñi ma xam xamu leen ci oto dara kin yore oto bi di ci bëgg a dee euh, euh, guddi di ci bëgg a dee bëccëg kay kooku li mu leen wax moom ngeen war a gëm ah, ah. wala baa nga ne tuqat la rek ñun dofuñu ah. ñun dofuñu de xaalis sama versement fi li nga war a jox sama cër xam nga ko dugal góor gi sa cër ak sama cër ak yëpp ñoo dem yëpp ca biir eh, eh, di nga jox foofu yow oto boo xam ne carnet bi la ñëw waaye yow Safiatou yow yow yow moom xanaa yow danga may bëgg a rey nag ah xoolal ni nga ma def xoolal sama sama yére yëpp dafa yàq yëpp dafa yàq gis nga sama xol bi dama ko sànni lépp di boyal ko ba si wàññi nga dem boyal ko wala nga teg keneen foo koy teg nga ñëw indi ko ba si sama xol teg ko ko di boyal saxaar yo akong dugis sama kau gas karbonit. Anak ibu nama de. Ha? Why? Ha, bak na. kau ko seta de mune kay yalla. Mana mom lañu mana dafa dafa ba ma genn kër gi. Loolu mom gisuma ko mom. Day metti rek de. Mais dama leen bàyyi kër gi ndax dama son man bay bëgg a dee. Genn kay di ci am. Genn xam soo genn kay dina ci am. Genn kay dina ci am. Ndax na waar torop. Xoolal yow. ngaa jiite li xoolal fi nga jaar. yaayee eh, dem naa fële ah sama nijaay Malle nee na mi ngi ñëw. dégg naa ko. waaw yaay nag na nag yaay yooyu yow ñetti weer yi nga am koo ndax ñëw. yaa ngi eh. may doy na. xaalis bi fi nga ko dugal man xam naa ko. fan laa ko <laughs> man xam xaalis ko dugal. moo moo. <laughs> yow yow yow amuloo wax. xanaa xamul ne oto bi li ma la ci wax yëpp yëpp yëpp sax presque waxuma lu lu bari. am nga martapie oto bële ma takk bindi fee waxuma la góor gi man daf ma mais yaay gis nga da nga waroon bàyyi sama nijaay Malle mu dem Kaolack créel Tafa mooy yoon de waaye tax may bàyyi Malle muy dem Kaolack waaye waay bàyyi yow de yow doom doo doo wax jàmm asa dafa nga ne man dinaa bàyyi Malle muy dem Kaolack ah. yow foogoon naa ku am xel nga mais yow amoo benn xalaat yow sama nijaay Malle ni mu tàngee ni mu mel ci biir kër gi su demee la nan la fay def du tas dëkk ba eh yow mi yaa amul xalaat lii li mu wax mooy yoon man li mu wax moom laa am moom laa wax léegi seen yaay. mais nijaay su koy su ñëwee ci kër gi fan lay nekk. du problème yaay du problème ak ñeenti doom. déglul du problème mu ñëw problème mu samp fulla ak fayda la. fulla ak fayda parce que dafay harceler jëkkëru euh, kii xale bi ah, mu respecté ñu man noonu laa gisee. Ah, loolu la ñuy mu ñëw harcelé ko jëkkëru jàpp. respecté et puis sax. Tafa bu ko neexee ah mën na takk ñaari jabar bu ko neexee mu takk ñaari jabar. waaye yow gis nga maanaam affaire boobu sax moo nekk sama xel temps yi. waaw su takkee ñaari jabar indi ko. buy ma fii man. Malle bu demoon kaw la. ja bu demoon kaw la. yaa amee kaw la mais mais mais mais mais mais mais mais bu ko neexee yaay man daal wax dëgg yàlla li nga def ànd naa ci loolu. kër gi fees ba nit ñi dëkkeelu ma ko fi takk def ama toog man seen yim paañ tàmbali leen man moom dama ci boole man moom du ma ci boole wax mbetteel moom ku ma ko dama lay abal rek dem sama ma abal li te benn baat rek moo fi am sama waaw moo fi sax tey ba ëllëg dara mënu koo dindi dafa a ah. dal sax ndax su yoo xam nga kenn du la def loolu yow ah. Non. de kenn xamu ko. mais kii mu yónni ko ci man du ma xam moom. fu ñu ko yónni ci yow. na ko wax fii mu leer waaye sama néeg du fa dugg lu mu fay wut. ah du ma ko fii. lan na ko wax fii mu leer wax ci biti ka waaw yow da ngaa dof wala da ngaa naan sànq wala dof léegi. ma ne la na ko wax fii mu leer. eh waxal liñ la yónni yow. kan moo la yónni bul wax eh bul la yónni bul wax la wax. bul wax bul wax comme que noonu la sax demal ni yow eh kii du demee noonu de. na ko wax fii dem noonu la toog sa xaate xaate lii mooy ah, ah man de waaru naa waaye yow xale bu ñu yónni mu ñëw dugg ci biir kër jotagut a ŋàng sax ñu koy pamt pamtee pamt pamtee ba xale bi xamul fi mu ne sax bu ñu ko laajoon du xam lu muy wax ah te yow fi ne xale baa nga nii kenn xamul lu ko lu ko indi kenn xamul ko ko yónni. kooku daal nga toog di xoole. kooku daal amul benn problème. amul problème jaru ko jaru ko. da lañ ko yónni. jaru ko man de jaral na ma ko dinaa dem man woo xale bi ba mu ñëw ma laaj ko lu ñu ko yónni lii de kenn mësu koo gis kon nag bu ñu yónni xamoo lu ñu ko yónni ngay suñu ko comment dara du ñu xam bu yaay rakku yàlla ku ñëw nga xam ne tamit am na ko mënu woon bàyyi wax rek li muy laaj ko man dinaa ko laaj ko yónni amul amul yàlla dara di nëbb bière kër jaaxal na xam nga lu tax nga rawale ko li ko jigéen yoon ni moo tax bàyyi woo ko mu wax ci diggu kër gi waaye nag dina leer waaw gisuma lenn lu waaye dina kuy naan dina bëtt boo jengoo feeñ dina leer fii naññ ngi dem te ñëw ah. lu ci yoon looy laaj ah. maa ngi dem te ñëw. allé danga may ba nga ñëw boo ñëwee tey ma may sama baat ma de góor gi mi ay affaire am leeratul de kii daal man fi ne nii. jaaxal na ma de baax na yow mi de lu ñu la jiiñ ma say mbir daal dara leeratu ci baax na waa góor gi mi mbaa sax day doxaan eh, baax na loolu de doy na waar ah <laughs> waa fii nag lu fi jar ay rangoñ fii lu fi jar ay rangooñ man de gisuma lu ko fi jar xale yu tuuti yi sax jooyatuñu waxuma la magum jëm ah wax dëgg fii man gisuma lu fi jari jooy ndax jigéen dafa war a yem rek palaasu jigéen jigéen dafa war a yem palaasu jigéen waaw waaye bu sa jëkkër génnee sax nga yaakaar ne da nga lii ak laa la ah di ñaaw njort nga tax ngay bés ba siy jooy xale yi sax jooyatuñu seen yaay xale yi jooyatuñu seen yaay suuf di ko tànn mënoo cee bu may ci ginar gi du da ngeen di baye ginar gi rek ni muy taxawalu rek te nen bu mu nen ngeen jël ko nen bu mu nen ngeen jël ko ginar gi mën ta fex ba am nen ci bir kër gi nen bu mu nen rek ngeen jël ko togal ko seen jëkëri baye ginar gi rek nen bu mu nen rek ngeen jël ko sama ginar gi dal moom bëgg na ngeen dimbalam ci lima di yëgal dal moy sama ginar gi na ngeen ma ci wattu wattu leen ma ci sama ginar gi nen bu mu fi nen rek ngeen jël ko tok nen bu mu fi nen rek ngeen jël ko tok te du ngeen ci bu may ko du ngeen ko jëlal ngeen wa dug légui yeen lis bu ngeen fi def di tok rek di lek fatte ginar gi comme yeen mun leena fexé ba am doom ci kër gi kay di ngeen bayyi xana ginar gi nen mëna a ba toj ko mu def ay cuuj bok sax ci kër gi mais <laughs> sama yaay daal ñetti weer rek nga ñëw fekk kër gi mel kër gaa ni mara day taali xott yee xotaat yi ci biir kër gi kenn du bale kenn du defar kenn du def dara kenn du toppale dara xoola daggiti paan yeeg furna yeeg yépp lee sax fi ne nii paxum kaña la ma nga nee paxum kaña la ma nga nee kër gi daal moom fi mu ne nii maar day taal laa lay wax ni kër gi torop

ne bul defe ne bi may toog nii sama tànk yi day metti di ruux gis nga sama kanam ne tubi xam naa li seen service nga jéem a dimbale pour ma mën faa dem ndax ñu mën maa ñun ñetti weer ngi ni fayeku ah ñetti li nga am fii man gisoo daal yi may sol moom moom ma ko def ni gisoo ñu commencé génn samay tànk sa maam la waaw sama as dong xanaa gisoo woon yaramam bi ni mu meloon. waaw la xaw ma la ñuy wax ndoxum siti. ndoxum la. Ibu ya, Ibu Chouboy Kalau ada mana? Ada mana? Kalau, kalau gitu. gitu gitu, cuma ne xoolal hah? Kalau tànk yi gis nga xoolal gis nga sama loxo yi gis nga ko ni ni mu def ni ay tubaab yaram bi guddee nag tàngaay bi muy tàng daal mënuma la koo wax ah metti na trop xanaa kay wax dëgg yàlla war nga maa mën service binyuman ñu mën sama yaram bi du ma nelaw guddi du ma def dara sama kanam gi ni day xesan rek may wokk rek na duma noppul ben yoon li metti na ibu dimbali ma ci kay ngir yalla senjañ mo koy fajj faj senjañ senjañ amatuma doole di ko naan ibu senjañ parce que man barki dem pa bi ma ko laajoon senjañ ah, la ah? ma digal senjañ mom wax dëgg yalla mom munu mako ko waaw suboy yaay muy ma fi dama lay wax dama paré bu toog yaay xaaral ñew assalamu alaykum

jarbaatu Moustapha Cissé boobu. waaw borom saret bi te mu jël suuf ci géej waay gi bés bu ne nga jàpp. ah mais ni jaay kooku te interdit quand gis nga li ñu fi interdit bëri waaye kooku sama protégé la na yow tamit. non mais affaire boobu su leen bàyyee ñuy def leen neex géej gi la ñu fekk. dama ne la lu ma gàddu nga gàddu ko <laughs> sama tiitër la toogal. <laughs> Eh, eh, eh, keroog keroog keroog ginaar gi nga ma yónnee benn tànk la. kenn ay waay nga ñëw yow guddi néew ma la nga bàyyi wayaasi guddi bàyyi wayaasi guddi te waaye ndumbe aja gis nga dama di la ñun suñu xeet moo bañ wayaasi guddi ana góor gi góor gi ne bu ma dencale di sama xaalis waaye góor gi ne ko maa ko ay poos ay gis nga xoolal koj naa Petersen gisuma ko 22 waxi noppi 37 kenn dégg naa léegi géejoo Pikine lay daw maa ko dàq denc ko góor gi daal mi ngi fi nekkeewu fi lu dul doxaan doxaan suba doxaan ngoon doxaan yoor yoor góor gi du doxaan ah, góor gi du doxaan du doxaan góor gi ah. góor gi du doxaan moom ma ne góor gi du doxaan laa wax du doxaan fu mu dugal xaalis bi kon gis nga góor gi ah. xam nga lu mu ñëw fii toog bi mu toog toogee fi may wax ak moom ma ne ko góor gi mun naa ma ne ko man de yow lay déglu sama wàll ci xaalis bi jox ma ko mu ne ma oto bi xanaa yow ya oto bi nga xam ne ba nga fi jógee ba tey lu ma am ci la yem ma ne ko nu mu ci yemee mu naan ma man daal oto bi amul la lu ma waxati sax man fàtte naa sax oto bi nga xamante ne fi mu ne dara baaxu ci ku ne naa fa di lijjanti ay carburateur carburateur nag moom kooku moom gis nga soo demee kii sànni ko si gii jaru fa dara mu wëlbati ko ci naan ma xaw ma luy ay piston ma ah, lan fuuxu ah, gis nga yooyu du yooyu du tuus nag yooyu du dara ci oto dara dara oto bi amul frein ay patin la yu bees la maa ko ci def oho oh. waaye yow eh ndumbe sa sa rakk ji nag moom sa rakk ji nag moom eh, doy na waar nee na walla oto bi nee na daf doon jéem a tourné nee na da doon jéem a tourné mu jékki-jékki ànd ak moom ne cuqet <laughs> day fen oh, kooku moom day fen mu ne walaa bi walaa oto bi moo ne pukat laa wax. dama ni la dubal nga xam ne dafa ànd ak oto bi ñoom ñëpp ñu bàyyi. ma ni la dubal dubal lees ci boppam munul bokki walaa la. waaye yow góor gi yow sa mbubb mi lu ko def nii. borom saret bi ma fontoore waaw góor gi lii mbaa jàmm la grand na nga def góor gi loolu def ça va bien waaye mais borom saret bi jékki-jékki rek ñëw dal sama ko ak brancaraan bi xool ni ni ni mu xotti sama eh, eh, góor gi brancaraan ah? bi xam nga ni brancaraan mais si si mais mais xool xool mais dafa yàq sama yére complètement brancaraan nga ah? wala saret dafa jékki-jékki ñëw dal sama kaw ma ne ko looy def ni mu jékki-jékki rek attaqué ma mais am na sens euh, euh, li la dal si si si li ma wax moom moo am li ma wax moom moo am lenn nag am na xam nga li la def ni jigéen na la ko def waaye nag yow laa doon xaar nga ñëw fii may ma sama baat loolu rek laa doon xaar egsi nga kii nii la mel léegi mbaa mbaa mbaa du naan ah non ah lu ma ah, ah ah eh. léegi dara umbutul de wala muy tox yàmba demal ci koñ bi léegi. ah melul nii kat ci koñ bi Malle kat nii kat melu ko ci koñ bi waaw. sànq rek la fi génnoon. wa eh eh, eh góor gi. góor gi. fàtte nga ma nag alhamdulilah rabbi alamin maa ngi ñibbi sama kër ndey ak sama kër baay. Eh, damay dem oh oh eh eh. 90 ans nag dégg. fasaw ma la. yaa ma wax fase nga ma yaa ma wax fase nga ma. Eh, yaa ma ko wax. waaye may ma. wax wax wax wax góor gi may ma. national man maa def national. yaa ma ko wax si ko ah. waaw déglu ma nag yooyu xam nga xam nga waxtaan waxtaan daf ci daf ci boole wax dëgg moom nee na fàttewu la nga ma ko tey fàttewu ma ko ëllëg fàttewu ma ko ginnaaw ëllëg. dama ci dul ànd sax man. kon jafe waay waay xoolal gis nga bul topp sa mer kaay ma toll. waaw waaw ah. dañ ba tax na ñoom bu ñu xasee ba añ ba pare rek kenn dootul teel ñoom ñëpp dañuy dal dem rek. ఉన్నారు kenn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Safia toog pend ñoom ñaar ñoo doon dóor kaña gi dóoruñu ko man lii la ñu dóor man lii la ñu door man nag man duma kaña man duma kaña xam nañu buñ ma dee xool di ma jaawale kaña man duma kaña naa bëggoon a kañ rek waaw déglu ma rek déglu ma déglu ma yéen soxor yéen a bon bi la yéen a nekk yéen ku mag jutal ni ma ni kii mos mos ngeen nga xaaj waaye kenn raw la Safiyatu defaral ñu affaire yi ñu attaaya bi quoi sieste bi ni sa say doom rek lañu xamuñ jëf ju ñaaw ji kat duñ ma ko def waaw wuy ma aji waaw wuy ma ndëmbe waaw ndëmbe déglu ma nag déglu ma déglu ma mati wuyu ma may ma jàmm sama bopp bi fi mu ne nii mi ngi may bëgg a rey laa lay wax nii waaw waaw déglu ma mu ne ma jàmm sa mag ji daal man moom daal du ba station du ba station du ba station bala wax station mooy yow loolu xamal du ba station loolu xamal gorom yi rek la goro yi dong la goro yi ñoo bon ñoo yées goro ya bon ñoo yées man waa ba jiba man dama waa ba jiba de man dëgg ma yàq man dama waa ba jiba dëgg ma yàq dëgg ba ma ba dëgg ñëwee dama koy wax dëgg ma yàq dama waa ba jiba ñii koy ñoo bon te yées ñu ñoo sew kenn dafa koo xam waaye ba tey man xaw ma ci biir xaw ma ci biir ci biir yéen a ko miinal kër gi de wat naa ne kañ gi budul woon man mii yow kañ gi dina rëcc kañ gi daal mu ne ñu fee bëgg na ñaa dem ñaa dem wut si fii rek laa ko kar waaw nijaay benn ñett ma ne ko saw njëkk jël mu ne këtiw këtiw daal bëgg ko song grand nga ne ko grand dalul foofu mag nga may leen ma may leen ma may leen ma eh, kii bàyyi bopp jàmbur kenn la xaar kenn xaar wuyu ma yow taxëy la dimanche kenn du xëy ana sëfaru car rapide ak dimanche weer wee sori weer wi su soree client du am weer wi fan la dem bay sori ah tey la fukki ñaar fukki fan ñaar fukki fan ñaar fukki fan kay client du am benn benn doom client ah, dañuy bàyyi seen soxla laal parce que weer dafa sori ah. soxla bés bu nekk la guddeeg bëccëg la amul waxtu oto bi ci duy ci gasoil mu naan ko te di nga ma dara ci génn dama ni xamuloo point yi dama ni soo xamoon point yi doo fi toog dimanche dafa am dafa am nooy dawalee da ngay resté ci banlieue bi ngay toog daw par étape diggante Pikine wuti géejawaay géejawaay nga nga dem caaro yi nga dem yëmbal yëmbal Kër Masaar noonu ngay dawalee dimanche. kooku ndeetel ko eh! koy def de. déglu ma ndeetel weer Ndakaaru nga def ñetti paas. dama ne déglu ma eh, soo bëree wax nga jox ma sama xaalis. Pikine Ndakaaru mën naa ko def ñetti paas soo bëree wax nga jox sama xaalis. pare gu ma jóg excès gu ma. xalaata dafa am dafa am tamit booy daw autorité ngay topp. ñu eh, ngi dafa am yoon. yaa ngi amul wax da ngay waxaale foo dugg fay dama ngi la dafa am yoon dafa am yoon mais yow dafa mel ni jànguloo ndeeteel weer nga koy def nag ah, ah maaleykum salaam waaw ah, yaay booy namoon naa la kañ nga ñëw ani waa kaw la ça va Ibou ça va naa la Aliou waaw Penda ça va góor gi moo yow siggil wax ak man da nga yaakaar dinaa la bàyyee noonu yow ah jëlloo ma yëfu jàmbur fayoo ko di wër si dëkk bi fu ma jëm nga daw dinaa la xaar xam naa fi ngay gaare dinaa la fekk peter seen laalo la wax li jëm ko ba nga xam ne ni man mi ko sëkkal dina la coûter cher gis nga guddi boo ma ko li jënd dinaa ko defal teg yow ba mu fii jënd salaamaaleykum. maa ngi leen quoi. mère Uba. mère kañ nga ñëw. mère lan. waxuloo wax. mais baal ma de baal ma de mère dama. wóor na yàlla ne damaa. maxu ñëw bi ngay ñëw ci kër gi dana tax waa kër gi yóbbaale. billaay dama juum mère dama juum de wóor na yàlla ne mère fii laa ko déggee ci kër fii laa ko déggee ci kër fii laa ko mooy maire bi nga xam ni day day jaxase di jaxase di jaxase di ay jiixi jaaxal rek ay rek ay njaaxum rek ak ah, kon nag seen eh man le ma ba de sama xaalis laa soxla mbaa sama table doo ma fontoon nag man munoo maa liberté man damaa lu ba pare munoo maa lu bëtt. dama laa defarloo sama table. man damay menuisier bu ay table war naa ko si li may. man bu mag di defar ladu reposé armoire bu huit battant nga laaj ma sama table. xam nga da ma jox sama xaalis tey sama table. déggal lu ma la wax rek. sou sama table